mbokk jullit yi mbokk taalibé yi asalaamu aleykum wa rahmatullah ci serin sëriñ Touba sëriñ Mountakha Bassirou Mbacké xalif général des mourides yal na fi yàgg lool te ànd ak wér ak ci ndigalu sëriñ Amdi Fall Modou Mbenda xalifa maam Cheikh Ibrahima Fall ci kilifteefu sëriñ Cheikh Fall Cokke xalifa sëriñ Mbacké Fall ibnu maam Cheikh Ibrahima Fall ak i rakkam sëriñ Gunda Fall xalifa sëriñ Bassirou Fall alxuraan moo am mbégte di fàttali di yégle ak di woote màggaluk maam Cheikh Ibrahima Fall di bésu màggal a fàttaliku ngërëm li sëriñ Touba ngërëmoon maam Cheikh Ibrahima Fall amewoon fa Daaru Salaam fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru rabiul awal di gamu at mu nek ñu diko magal ci Touba Jannatul Mahwa ren mu dëppook talaata ñetti fan ci octobre 2023 ñu ci sante Serigne Touba di ci njukkal mam Cheikh Ibrahima Fall programme bi ni lay tëddee bu ñu xeyé 8 heures ba tisbaar njàngoom jangum ak khassida, 14 h ba 15 h bernde yi 15 h 17 h ñu tecc jangum 18 h cérémonie officielle bi 21 h ba 22 h reer yi 22 h ba 2 h du matin ay waxtan bi ay conférence religieuse ci dund jaar jaar ak liggéeyu mam Cheikh Ibrahima Fall ñu ci ak borom xam-xam ak i gëstukat yu ràññeeku ci yoonu murit deux heures ba sept heures du matin zikrulaay ak Serigne Cheikh Ndoy sept heures Serigne Ngunda Fall xalifa Serigne Bassirou Fall alxuraan gërëm mbooloo mi ñaanal leen ñaanal réew mi mbooloo mi yewiku ba déwénati incha allah ñu fekkewaat ko ak jàmm bés bangoog bésu màggal ak fàttaliku bés bi ku tedd ki gërëmee maam Cheikh Ibrahima Fall fa Daaru ñu di ko amal fi Touba Jannatul Mahwa talaata ñetti fan ci weeru octobre 2023 di ko yëgal njabootug Sëñ Touba gépp mboolem njabootug maam Cheikh Ibrahima Fall mboolem cheikh yi bolem talibé yi talibé bay fall yi ci bir rew mi ak bitim rew mbooleem këru diine yi mbooleem julit yi mbooleem daayira yi rewatina daayira yi aju ci kër sëriñ Bassirou Fall alxuraan ci bir rew mi ak bitim rew assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa allah la allah